mbokk yi alhamdulilah ñu ngi war a jël tey aaya cent quatre bi ci suratul maida ci suñu borom di waxee ni wa ida qiila lahum taalaw ila ma anzala allah alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñu ñi dajale ci weeru mag wi waaye rawatina ci jeexitalu weeru mag wi muy fukki fan yi nga xam ni ñoom ñoo tëj la nga xam ne mooy chehru ramadan jàpp naa kenn ci yéen réeréwul ne bu masaan ñëw suñu yenente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan bàyyi mboolem ittey addunaam féete ca jàkkaam ja sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baba koor ga di jeex noonu it la ko doon ànd ak lu bari ci ay saxaabaam bu ko defee yow it nga xam ni loolu suy ittey àdduna dana tax ba mu xaw a jafe ci yow nga la waay waxtu woo amul liibar rek xamal ne fa gën fa nga koy jagleel muy néegub yàlla ba rawatina nag foo xam ne dañ fay dem boole fa dajaloo di fàttaliku la gën a màgg ca la yàlla taggee weeru koor ca mooy alquranul karim kon ñi ngi sant suñu boroom mi ngi dëppale ci lii waaye di ko ñaanit yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu mboolem ñi nga xam ne ñoo koy déglu wala seetaan fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla boole ñoo ñoom ca loolu ab yonentam digge woon allahuma du dul ne dañuy ñaanalit ña nga xam ne tey jii ñooy jottalikat yu mag yi mooy ñiy jël waxtaan yi di ko tasaare ci jullit ñi na doon groupe yi aju ci jàkk bi la wala site yi nga xam ne ñoom ñoo koy saytu rawatina suñu télévision bi di Islam TV maa ngi fi gisee suñu mbokk bi nga xam ne moo teewal dégg diine yal na yàlla subhanahu wa taala nangul leen seen liggéey te jullit yi it ba ko xam ne yooyu ma tudd yépp amul kenn ku ci faggu dara di def ci poosam ñoom ñépp dañuy góorgóorlu ngir tasaare kaddug yàlla su ko defee la ca waaye am jàppale leen it xamal ne yaa ngi bokk ci allazina yansuruuna allah ñay dimbali yàlla ca suñu borom mu ne in tansurullaha yansurukum fii génn ngi dimbali yàlla yàlla di leen dimbali kon insha allah ñu ngi war a jël wa ida qila lahum taalaw ila ma anzala allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسم فيقسمان بالله إن ارتبتم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu borom mu ne ñi nga xam ne day mooy ñu réer ñooñu wa ida qiila lahum taalaw ila ma anzala allah buñ leen waxee iwaay kaay leen jëm ci li yàlla wàcce wa ila rasul ñu jëm ci yonent yàlla ba qaalu xasbuna ma wajadna alayhi abaana ñu ne déedéet ñun kay doy nañu la nga xam ne fekkoon nañ ca suñu baay ya awalaw kaana aabaa'uhum laa ya'lamuuna shay'an wala yahtaduun a doonte ne sax seen baay ya xamuñu woon dara te nekkuñu woon di aji jub yaa ayuha allazina aamanu alaykum anfusakum e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm e waay maa ngi leen di dénk ngeen ittewoo seen bakkan laa yadurrukum man dalla iza htadaytum du leen lor mukk koo xam ne dafa réer su dee ne yéen doon ngeen tegati yoonu njub ilallahi marji'ukum jami'a ci yàlla mooy seen delluwaay seen delluwaay mboola seen fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluun mu xabaara leen ca la ngeen nekkoon di ko def yaa ayuha allazina amanu e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm shahaadatu baynikum na nekk seede ci seen diggante ida xadara ahadakum almawt bu dee dafa teewe kenn ci yéen ak dee xiina alwasiya ca jamono ba muy def dénkaane ga isnaani zawa adlin minkum na doon ñaar ñu maandu ci yéen julit ñi aw axaraani min gayrikum wala yeneen ñaar ñoo xam ne bokkuñu ci yéen dulit ñi in antum darabatum fil ard su dee da ngeen nekk di tukki ci kaw suuf fa asabatkum musibatul mawt mu daal di leen di dal lii di musiba ba nga xam ne mooy la dee di indi tahbisuunahuma min baadi salaa ñooñu day na ngeen leen fekk gannaaw julli gannaaw julli ga fa yuqsimaani billah su ko defee ñu waat ci yàlla in irtabatum su dee ne sikk ngeen sàkk ci seen mbir fa yuqsimaani fa yuqsimaani billah kon nañu waat ci yàlla su ko defee ñu ne la nashtari bihi samana ñu ne ñun day seede gi duñ ko jënde mukk ak njëg mi nga noonu wala walaw kaana za qurba doonte ne ne kookee aji jege gu ñu jege la wala naktumu shahaadata allah duñu nëbb mukk seede ak yàlla gi inna idan la min al asimin suñ ko defee day kon nga xam ne ñun nekk nañ ci def ko te bakkaar yi mi ngi noonu bokk suñu boroom bi ñu fi mujjee démb ñu ngi doon fàttaliku lenn ci arab yi jàppoon ne ngërëmal yàlla ci seeni xalaat lañ koy jële ba tax jur googee mu am yu ci bari yuñ ne lii jagleel nañ ko yàlla saaiba wasila xaam ila axiri borom bi nag subhanahu wa taala ni buñ leen waxee kaay leen ñu dem ci li yàlla wàcce ma julit yi lan la yàlla wàcce ci ñun mooy alquranul karim kaay leen ñu dem ci alquranul karim kaay leen ñu dem ca yonent yàlla ba lu waral loolu mbokk alquran ba yàlla wax ak ñun ne nañ ko ci jaamu waxi yàlla boobee kenn dong moo xam nañ koy defee muy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee nañu aqimu salaa taxawal leen julli yow mi nga xam ne da nga ne de alquran kese nga doyloo comme malheureusement lañ doon dégg ba ma ko déggee benn mbokk ñëw fii tchadien di ma ko wax dama dama yéemu ndekete loolu ñëw na ba dugg Afrique malheureusement année yi mu ñëw ba dugg suñu réew mu dañu tudde quraaniyuun ay ndaw ñoo xam ne internet détourné la leen ban jàpp ne alquran kese la ñu war a jaamoo yàlla ay yow alquraaniyiin suñu borom nee na julli leen naka la ñuy jullee loo ma mën a wax ci julli rek alquran waxu ko nañ koy defee na am suñu borom mu ne irka'u wasjudu di loolu la yàlla wax de fan lañ gis ci alquran rukkoo benn lay doon sujud ñaar lay doon amul fenn ci alquran fu ñu gis ci alquran timis ñett lay doon gée ñeent lay doon amul fenn ci alquran na ngeen dem aji ji makka fan lañu alquran waxee ne ci weeru tabaski la ñu war a aje fu ñu alxuraan waxee ne arafa ah suñu borom mu ne isa fatu min arafa fu ñu alxuraan waxee ne juróom-ñeenteelu fan ci tabaski la ñu war a daje arafa fan la alxuraan waxee jamra fan la alxuraan waxee daje ci muna ak ilaaxiri nga dem ba jaamu yàlla yi jeex loolee kon bokk ñu xam ne dañu war a dellu ci yonent yàlla bi moo ñuy jàngal nu ñuy jaamoo suñu borom loolu it day tax ba bokk ne yéeféer yi arab yi li ñu doon lay mooy ñun li suñu maam yi li ñu fekkoon suñu bàyyi loolu doy nañu waaye yow julitit buñ la wax ne la lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax nga ne man li ma fekkoon samay bàyyi doy na ma te mbokk lu ëpp ci nit yi tey da nga koy laaj na ko yow loo doon mu ne man waa caamin la wala lu tax nga nekk caamin ah damaa fekk saa bàyyi nekk caamin saa maam nekk caamin woo tax ma nekk caamin jeex na ndax am na lay bu koy wonne nii muy jaamoo wàccaami nii ñuy jaamoo yàlla nii rek la ko yàlla gërëme am am na leen lu gën a jub loolu loolu moom yoonam néew ci waaw ala kulli xaal mbokk jullit bul mel noonu gis nga sa baay tànk nekkul mushrik muy bokkaalekat njuumte bu mu mënoon a nekk yàlla mën na ko koo baal lu tax mooy lu bari ci ñoom lay ñëwul woon ci ñoom xamal leen ni nii ngeen di jaamoo yàlla safaanoona ak sunna yow nag nga dund ba yàlla baaxee la yow xamal ne la ne doxalin bii day sunna yonent bi nii la moo gën a jóg léegi lan mooy pexe ndax damay dëgër bopp ne ci li bàyyi nekkoon lay sax wala damay dellu ci sunna ñaanal sama bàyyi mbokk lay xel mooy yow sa bopp nga dellu ci sunna ñaan yàlla jéggal sa bàyyi te loolu yàlla mën na caa dëgg nangul la jéggal sa bàyyi boole la ak ñoom ca àjjana ya loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax xamal ne yàlla yónniwul ci yow sa bàyyi yàlla yónent yàlla muhammad la yónni ci yow soo nee cëpp bàmmeel duñu la laaj ku doon sa bàyyi dañ lay laaj ban yónent lañ yónni woon ci yow kon taalaw ila ma anzala allah wa ila rasul ak yónent bi borom boobu nag subhanahu wa taala daa di ne ay yéen jullit ñi ngalla waaye maa ngi leen di dénk ngeen ittewoo seen bopp nit ki réer loolee mbiru boppam la du leen lor ci dara mi ngi noonu ca itamit loolu mbokk mbaaxoog yàlla la suñu borom yàlla ëllëg du topp nit mukk na ko yow day ki yóbbu leen ko sawara lu tax mooy bàyyam daa réeroon laa doomam dafa réeroon laa jëkkëram dafa réeroon laa déedéet moo tax mu jox ñu ci misaal yuy dund yonent yàlla noox ma nga nele jabaram réer doomam réer du ko lor ci dara ibrahima nga ne baayam réer du ko lor ci dara firawna say say bu bon baa nga ne soxnaam sa asiya du ko mën a lor ci dara luut ma nga nali soxnaam su bon sa du ko lor ci dara waaye nag mbokk julit abubakarin saddiq day yéeg na ca kaw min barab yonente ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne ay yéen nit ñi aaya boobu ngeen di jàng suratul maida bu mu leen wor de suñu borom mu ne ittewoo leen seen bopp ki riir du leen lor ci dara waaye la ca tege mooy isahta day tum su dee da ngeen a jub mbokk julit munta jub lu dul daa diglu lu baax tere lu bon lu ina allazina kafaru min bani israil على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه munoo ne man jub naa te doo déglu lu baax te lu bon looloo tax li borom bi ne aleykum anfusakum nga la way julit bàyyil xel sa bakkan mooy sa sa sa ki nga war a jëkk a sàmm qu anfusakum wa ahlikum naara fexeel ba sa bakkan bii nga tàggat ko ba teg ko ci neex yàlla njaboot gi la yàlla wërsëgal digal leen lu baax tegal leen lu bon tag tàggat leen ci sa kàddu fu mu mën a yegg yegg fa lii de boo ko defee suñu réeree sa yónnewu ci su dëkk bi réeree sa yónnewu ci ndax yow def nga sa waru gar isaxta day tuum borom bi nag mu ne xam leen ne yéen ñépp ci yàlla ngeen di mujj te loolu it mbokk bokk na la ci borom xam-xam yi di wax ñu ne aaya bu mel nii moom mu di wàcc ci téereb yàlla bi ca suratul baqara wattaqu yawman turja'una fihi ila allah ragal leen bis bi ñu leen di delloo ci yàlla te loolu it mbokk ku ne war koo ragal bis bi ñu lay delloo ci yàlla boo ko xamoon sax war koo ragal waxuma nag boo ko xamut bu la wóoroon ne man kaw suuf danaa ci dund cent ans mais bu cent ans yi jeexee dañ may yóbbu yóbbul xisaab loolu sax kon nga war koo ragal waaye mbokk bis la boo xam ne mën na doon tey mën na doon suba kenn amu ci benn garanti amul doomu aadama loo mën a garanti walaw kuntum fi burudin mushayyada même bu ngeen nekkoon ci château fortifié mucc mën a mucc ci dee kon ragal leen bis boobu nuñ koy ragale mooy waajal ko nuñ koy waajale al imaanu sahih wal amalu salih mooy fexe bañ a bokkaale ak yàlla dara waaye fexe jëfee lam yónni woon ab yonentam subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne nag bu ngeen ñëwee lépp lu ngeen nekk woon ci kaw suuf dinaa leen ko nettaliwaat lépp rek dinaa leen ko nettaliwaat te loolu ñu ngi sant suñu borom dañ koy jàng fan la ñuy fekk borom bi nee na wa ma taqulu fi sha'n wa ma tatlu minhu min quran wala ta'malun min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufiduna fihi وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين bare bi mu ne lu ngeen mën a nekk di def heure bu ngeen toogee di jàng alquran ak jëf bu ngeen mën a jëf gis ngeen borom bi daa tënk suñu dund lépp génn ci nag jamono ji ñuy toog di jàng alquran mu ne lépp maa ngi koy seetaan te lépp bind naa ko sama téere te bu ngeen ñëwee naa leen ko nettali ah yàlla keroog ba ngeen naan ba ngeen di daje ca masjid Saad ibn Abi Waqas di jàng sama téere loolu day jéggal naa leen ci yërëm naa leen ci dem leen àjjana yàlla na yàlla defal ñu loolu waay ak képp ku koy dégg waaye it mbokk muy lu tiit lu yit de suñu borom nee na fu ngeen mën a nekk la ngeen fay def danaa leen ko nettali nettali boobee dana ko jaarale ci témoin yim ñu boole loon te bokk na témoin bi gën a jege sa loxo yii sa tànk yii sa der bii foo ma soona dugg loo fa ma sa def lépp dañ ko nettali am déet shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bu ko defee ñu naan waaye lu lu tax li ma shahidtum alayna xaalu antaqana allah allazi antaqa kulla shay yàlla ñu wax loo moom wax loo lépp loolee ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom yàlla bàyyi loolu daa di ñëw ne ay yéen julit ñi su ngeen demee ba dee dab kenn ci yéen moo ki ki dee ba pare moom dee na waaye xadara ahadukum mawt mooy feebar yëg nga ci yow feebar boo xam ne lii moom bu la bàyyee da ngaa dee su boobaa ngal la way borom bi mu ne def leen wasiya def leen dénkaani ca bokk na li rafet sax mooy même bu dee yëgoo dee nga def dénkaani def sa wasiya sa testament ndax li ñu ko waxee sànq dee mën na laa bett rawatina boo amee aqi doomu aadama yi imma luñ la dénk wala ay bor yoo leen war a fay wala lu baax loo bëgg a def lu ci sa alal waaye nag day gën a nekk nag feddaliku heure bi nga demee ba yëg ne yow mii kat feebar bi moom boo ci jóge tey da ngaa dee su ko defee suñu borom mu ne na ngeen def testament bu dee da ngeen di dénkaane dénkaane boobee la ca jiitu mooy addayin yoral naa diw ak diw xaalis yoral naa kees nangam yoral naa leen nangam loolee moo ca gën a yey gannaaw bi suñu borom may na la sa ceeru alal loola neex nga def ko te nañ ma ci joxal ñii yóbbul ma fii yóbbul ma fii tant que paasewul ceer bi islam dana la nangul loolu borom bi jàll wa ala mu ne nañu woo ñaar ñu maandu ci seen biir jullit ñi mbokk jullit amul droit nekk ak ay mbokk jullitam di def ay témoignage di jëli ay catholique wala ay yéeféer amu ci droit tant que yaa ngi nekk si biir ju mbokk jullit loolu comme ni ngeen xamee yow ndawal jullit it moytul nga am possibilité takk sa mbokkum jullit bàyyi ko fi naan da ngay takk ay chrétien mi nga noonu am maa nag boo demee ba amoo pexe takk jullit islam may na la nga takk chrétien mi ngi noonu borom bi it fii li mu wax mooy nañu wut ñaar ñu maandu mbokk ko maandu ci lislaam mooy koo xam ne xamuluñ ko bakkaar yu mag yi gis ñu ko muy naan sangara gis ñu ko muy carte gis ñu ko muy njaaloo gis ñu ko muy nangam ku mel noonu dañ naan kii day ku maandu la mi ngi noonu kii ku maandu la loolu ñu bàyyi ci xel bu dee ne nag dañoo nekkoon ci tukki fa ñuy nekk ci tukki ba ànduñu ak ay jullit ay catholique rek lañu àndal ay yéefee rek lañu àndal su boobaa it suñu borom mu ni su dee ne musibab dee da leen a dal ba gaa yi xam ngeen dee musiba la ko yàlla tuddee te ak ay musiba yaay ji nekkoon ci kër gi gérer njaboot gi yépp jabar gi yépp dëkk wër yaay yaay muy yëkkatee ko tëral sanga ki ki xëy xëy yàlla jël ko gaa yi loolu musiba la de bàyyi bi doon daw di kër kër yi di indi ci njaboot gi di leen dundal di leen ku fee feebar mu jóg problème bu am mu jóg xëy xëy yàlla jël bàyyi loolu musiba la de waaye Sénégal de dañ ne yàlla deet loolu musiba boobu moom ak noos la léegi soo ñëwee Sénégal musiba bu dee ak noos la bokk doon noos gi gën a rëy gu ñuy noos Sénégal muy ab dëj am déet ngente benn jour la mariage benn jour la dëj nag moom mën nga faa toog une semaine di di di di di di noos mi nga noonu loolu suñu mbokkum taalibe oustaz Gassama boobu loolu la daan wax nee na ba ñu nekkee Dakar di yelwaan nee na bu ñu amee ngente alhamdulilah bu ñu amee mariage alhamdulilah waaye dëj nag moom moom dëj rek a jàkkamti woon ndax dëj moom dana leen garantir daanaka une semaine de añ ak reer mbokk loolu nañu xam ne dañoo dab du suñu aaday maam de loolu du suñu aaday maam loolu dañoo dab da ngay gis ne mbokk suñu maam yi xamuñu woon nit dee ñuy rey ay nag di togg ay mbana ceeb léegi nag lu ñu xewal Dakar mbana ceeb bu dëgër baa nga ne mbana mbaxal baa nga ne ku bëgg mbaxal mbaxal ku bëgg ceeb bu dëgër dëgër mbokk loolu ay musiba la mooy yàlla li nga def faalewuñ ko li nga def faalewuñ ko mbokk dee bu jëkk ñun day bañuy xale li ma ca fekkee gis néew da nga daan gis nit ñi dañuy triste nit nit ñi dañuy jooy xale yi dañuy ragal a jaar koñ ba sax ñu dee dëkk bi yépp triste am maa léegi folklore dañ ko def xar mu dégg nit ki dee la nit ñi yemale alaakulli xaal dëjoo yi bu ca bokk mukk dëj baaxul islam gërëma ko loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu bu mag ñi dee rek da ngay gis ne problème day am du ma koy wax en général ca ñaanu lu ma ku fi nekkoon di grand serigne de Dakar El Hadj Maodo Sylla kooku moo ci xaroon tànku tubayam am na soxnaam bu faatu jiitu muy faatu ba mu demee yóbbu ko suul ko yoof bi mu ñëwee def na mbooloo mi soxna diw dey moo nekk lu ñu faatu na yóbbu lañ ko yoof léegi nag jeex na dem leen ngeen ñibbi ña fa jógoon ay mbaawagoy mu jox leen paas terminé amul togg añ amul dara amul bâche ñëpp nañ ñibbi bi muy faatu moom testament bi mu waxoon ay doomam bu ma dee bala ngeen koo tasaare Sénégal suuri leen ma ba pare su ngeen ñëwee na ñëpp ni bi bu fi kenn dëj jeex na mbokk lii bu ko ñëpp defoon dana sauver ñu bëri waaye da ngay gis ñu bëri tey bu seen bàyyi dee seen problème du bàyyi bi dee mooy nag yi ñu war a jënd mooy nekk seen problème yi nga noonu am na bi ku ma xam koo xam ne moog bi yaral càmm mii bokkoon nañ fu ñu doon liggéeyee ñu dëkk fii ci Wakaam seen bàyyi daa dee ñu dajale kocc kocc kocc ba jënd benn yëkk nag indi maa ngi nañ nekk ne ne si ah diw dee ñu koy reyal benn nag loolu du am ci dëkk bi fokk ñu bu fokk mu nekk ñaari nag mbokk xoolal lii loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom mu ne dee musiba la kon nañu woo ñooñu nga xam ne duñu ay julit suñu sikk sàkkaa ci seen mbir su ko defee ñu waat loo leen ci yàlla te na am mbokk julit da ngay gis ab chrétien ab yéeféer yu jëkk yi ñëpp xamoon yàlla xanaa kay dañ ko doon bokkaale nañ la waat nañu waat ci yàlla ne lii ñu leen nar a seedaloo day di alal ji ñu leen nar a dénk wax di ñu leen nar a wax duñ ko jëndi mukk la nga xam ne moom mooy njëggu néew te mbokk njëggu néew mooy àdduna ak li ci biiram rek mata u dunia qalil nit ki it lum ñu jege jege ci mbokk du tax mukk ñu jéng ci moom ba séddu ko lu ëpp la nga xam ne moom nga ñuy wax du ñu nëbb seed ak yàlla gi loolu buñ ko defee da ngay gis ne dañoo doon aji tooñ mi ngi noonu kon Cheikh Ousmane
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين suñu borom jalla barakallahu fiikum suñu borom mu ne fa in usira bu dee ne day feeñ na ne ala annahuma stahaqa isma ne ñii day yeyoo nañu la nga xam ne mooy bakkaar te mooy fen nañu fa axaraani yaqumaani maqaamahuma na doon ñaar yeneen ñaar ñuy taxaw ca seen place min allazina stahaqa alayhim ca ña nga xam ni dañoo jël ca ñoom seen aq humul awlayaan ca mooy ñoo ña gën a jege loolu la ko mufassirun yu bëri di waxee mooy nga xam ne ñoo gën a jege ca ñee jël seen aq fa yuqsimaani billah su ko defee ñaar ñu mujj ñoo ñee waat ci yàlla la shahaadatuna ahaqu min shahaadatihima ñun de suñu seede bii moo gën a yey seede ñaar ñii wa maatadayna te ñun de jéggiwuñu dayoo inna idan la min zalimin loolu de buñ ko defee nga xam ne kun bokk nañ ci tooñkat yi zalika adna an yatu bi shahadati ala wajhiha loolu de mooy gën a yey ci ñu indi seede ga ca nam ca jubluwaayam ay ca kanamam mooy nam war a tëddee aw yaxaafu an turadda aymaanum baada aymaanihim wala ñu ragal ñu delloo seen waat yooyee giñ yooyee ñu giñ mu delloo ak giñ la nga xam ne ñoom giñoon nañ ko lu jiitu wattaqullaha wasma'u ewaay ragal leen yàlla ci digg ay ndigalam wallahu la yahdi alqawma alfasiqin yàlla day du jubal xeet boo xam ne dañoo génn topp mi ngi noonu mbokk jullit ay chrétien ñëw nañu wala ay yéeféer yoo xam ne ñoom dañu julit bi ñu ñëwee ñu ne ah seen mbokk ma day dee na ca àll ba waaye nee na lii la bàyyi ci alal nee na it nañ def ci alalam nangam ki nangam ki nangam loolee wax jooju ñu wax su dee ne amuñu lenn luñ cay ragal su boobaa da ngay gis ni amul luñ cay ragal waaye bu dee mbokki jege ñaale yi nga xam ne ñoo xam waaj xam nañ ne alal jii ñu wax moom la ñu indi waa ji amoon na lu ëpp lii xamoon nañ ne lii ñu wax ne waa ji nee nañu def ko waa ji niñ ko xamee waa ji du def loolu mukk su boobaa ñoom am nañ droit taxaw ci kanamu attekat bi daal di ne ñun day ñi ngi seede ne ñii li ñuy wax amul li ñu xam ci waa ji mooy nangam mooy nangam mooy nangam ca ba booba ñaari jullit ñooñee buñ taxawee seede gañu seede waat ci yàlla jëlla wa ala seen ñaari yooyu la ñuy nangu on te ne ne de leen bàyyi xel li suñu borom di wax toujours fa yuqsimaani billah hatta ab yéeféer dañ koy waatloo ci yàlla waxumaa nag ab jullit mbokk waat ci lu dul yàlla ba mu xewee Sénégal gi sax yàggul suñ maam yi xamuñoon lu dul yàlla xamuñoon lu dul yàlla bañ demee ba àdduna dox la fi ay yenn sëriñ si feeñ doon woote ci yàlla bañ fi jógee nit ñi ñoom fàtte yàlla yem ci ñoom waaye suñ maam yi jëkk yi yàlla rek lañu xam seede yàlla waat naa ci yàlla mi ngi noonu yàlla rek lañu xamoon fa yuqsimaani billah ñu seede ci yàlla borom bi it ne ñun day jéggiwuñu dayoo te bu ñu jéggee dayoo dee tooñ nañu te mbokk loolu it bokk ci lu grave mooy changer testament mi ngi noonu mooy képp koo xam ne nii dafa def testament ba pare yow nga daal di man man baddalahu fa innama ismuhu allazina yubaddiluuna yow kii def testament masalan un million bi nañ ma ko yóbbul ca jàkka ja un million bi nañ ma yóbbul daara un million bi nañ ko séddale sama ñoom ni yaay ila axiri yow loolee nga gis ko ba pare dëgg ci sa tànk wala nga sosal waa ji lu mu waxul waa ji de moom lam bindoon wala lam waxoon yàlla dana ko ko fay ba mat sëkk même bu dee joxewu leen ca dërëm yow mi nga xam ne nag yaa ko jalgati yow yaa gàddu la nga xam ne mooy bakkaar bu mag boobee loolee ñu gis noonu donte ne it islaam noonu la ñuy maye fa man xaafa min muusin janafan aw isman fa aslaha baynahum fala isma alayhi koo xam ne dañ koo defal benn testament mu xool ko gis ne testament bii kat safaanoo na ak na sunna tërale comme li ëpp ci nit ñuy def ba ma dee sama kër sàngam na ko jabar jël la doom sàngam jël nangam nangam déedéet mbokk képp koo xam ne yàlla da koo jox cër ci sa miraas amoo droit di ko jagleel dara loolee ku mel noonu moom bu redressé miraas boobee loolu moom tuyaaba la ko cay jural borom boobu nag subhanahu wa taala kon moom lay wax ne ñooñee nga xam ne kat dañoo jege ak waa ji te miraas ba di seen miraas ñu xam ne ñii kat ñi ngi leen bëgg a lor ñoom day bu dee nga xam ne ñoo gën a jege al awliyaan suñu taxawee waat ci yàlla seen témoignage la ñuy jël borom bi nag mu ne lii tëral naa ko ngir ka nga xam ne dafa bëggoon a jalgati su ragalee na su ma waxee lu dul noonu it waatu ñi dana dàq sag waat dana tax mu daal di wax dëgg borom bi nag mu ne ragal leen yàlla ci dégg ay ndigali yàlla te xam leen ne yàlla du jubal xeet boo xam ne ay tooñkat lañu alfasix moo ko jàdd yoon te it moom la tubaab yi di wax naan un crime n'est jamais parfait en général ab tappalekat bu tappalee ba tappale it boo xoolee gëstu rek fokk mu am ay faay ci ay waxam loolu nag suñu borom yàlla mu ne képp koo xam ne day day day day nekk faasix tooñkat yàlla du jubal ay mbiram mi ngi noonu Cheikh Ousmane
yawma yajma'u Allahu يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين barakallahu fikum suñu borom mu ni yawma yajma'u allahu rusul bis ba yàllay dajale yonent yi fa yaqulu maza ujibtum mu ne waaw yéen seen xeet lu ñu leen wuyoo qaalu laa ilma lana innaka anta allaamul ghuyub ñu ne ah yàlla ñun day amuñu xam-xam yow yaay ka nga xam ne yaa xam kumpa إذ قال الله يا عيسى ابن مريم موي بي يالا نان اي عيسى دومي مريم اذكر نعمتي عليك فاتلكل سمي خيول تي يو وعلى والدتك اكسي ويجر إذ أيدتك بروح القدس بما لي دولي لروح قسلق مي جبريل تكلم الناس في المهد وكهلا ngay wax ak nit ñi ba nga nekkee si berceau wa këhla ak ba nga nekkee waxambaane ñii ne mooy entre trente ans quarante ans am ñu ne trente ans cinquante ans la gannaaw cinquante ans nag cheikh ngay doon wa id allamtuka alkitab walxikma mooy ba ma lay jàngal la nga xam ne moom mooy alkitab di téere am ñu jàpp ne alkitaaba la mooy nga mën a bind walxikma jàngal la sunna ba nga xam ne mooy leeral téere bi yàlla ba والتوراة والإنجيل جنجل التوراة جنجل الإنجيل وإذ تخلق من الطين فتلك البغي بند تبان با كهيئة الطير لملن ملكان بيتش بإذني كسام ديغل فتنفق فيها غدار اف فتكون طيرا بإذني مصفلك نك بيتش كسام ديغل وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني فتلك البغي ويرل ka nga xam ne daa juddoo silmaxa bëtam yépp muuru ak ka nga xam ne daa gaana ba dagg ci sama ndigal wa is tuxrijul mawta bi izni fàttalikul ba ngay génne néew ya dekkal nit ci bàmmeela mu jóg taxaw ci sama ndigal wa is kafaftu bani israil ank fàttalikul ba may fekk bani israil ban jëmee ci yow is jitahum bil bayinat ba nga leen di dikkal ci lay yu leer ya fa qaala allazina kafaru moo wax ñi nga xam ne dañoo weddi minhum ca ñoom in haza illa sixru mubin lii du dara lu dul njabar gu biir gu leer rek mi ngi noonu mbokk suñu boroom amul temps yow doomu aadama yaa am démb ak tey ak ëllëg suñu boroom yàlla temps tënk ko looloo tax li fi xewoon un million d'années li xew un million d'années ci kanam lépp yem ci moom mu ñuy wax loo xam ne sikk amul danaa ko fekke yéen da ngeen ko fekke mboole mi jaami yàlla yi nit ak jinne ak malaaka dañ ko fekke mooy suñu borom yàlla dajale mbindaa fënam yépp ci dajab yow mag diin daa di woo ay yonentam aadama nuux ba yonent yàlla muhammad am na riwaay yi wax naan cent vingt quatre mille lañu wallahu subhanahu wa taala alam rusul yéen nekk nañu trois cent et quelques mille wallahu nekkoon nañ trois cent et quelque wallahu alam ñu noon bañ an biyaa wa rusul su ko defee suñu borom mu ne leen waaw yéen seen xeet lu ñu leen tontu ba ngeen leen woowee seen xeet lu ñu leen tontu ba ngeen leen woowee am na ñu ne yonent yi dañoo tiit ba xamatuñu sax lu ñuy wax yàlla ñun day amuñu xam-xam lu dul nag ñu xamal am ñu ne dañ ne kat yàlla ñun mënuñoo xam li nekk ci seen biir mi ngi noonu allahu aalamu bi ma anfusihim comme na ko yenn yonent yi waxe ñun daal yàlla woote woon nañu ndax nag ni ñu wuy si woon wuy si nañ ci sincérité loolu ñun yàlla xamuñu ko yow day yaa xam kumpa mi ngi noonu allahuma lu dul mbokk julit la ñu sunna jàngal mooy la ëpp ci yonent yi da ngay gis ne lu néew leen topp bal yonent yi sallallahu alayhi wa sallam ne ne yowmal qiyaama dana am yonent bu ñëw fukk ñoo ko wuy si xeetam dana am yenente bu ñëw ñaar ñoo ko wuy ci xeetam dana am yenente bu ñëw kenn moo ko wuy ci xeetam dana am yenente bu ñëw kenn wuyuwu ko ci xeetam kenn wuyuwu ko kon maza ujibtum lu ñu leen tontu mi ngi noonu xamuñu yow yaa xam yaay allamul xuyub yu mel ne rek li yàlla nar a laaj ñi isa ibnu maryam suñu borom dana wëlbati ko ci isa ndax xam ngeen ne isa moo ëpp ñu ko gëm isa ibn mariam chrétiens yi ñoo ëpp ndax la tey ci àdduna bi boo xoolee ñoo ëpp fuuf jullit ñi donc ñi gëm isa ñoo ëpp borom bi ne ko waaw isa ibn mariam fàttalikul samay xéewal ci yow ak ci sa wayjur te it mbokk xam leen ni xéewalu yaay xéewalu doom la rek bokk ne xéewal gi jëkk gi gën a rëy gu doom ju am mooy yaay ju baax loolu la ma gëm arab ma waxoon doom ya yàlla mayeen ko alal lu ne mu defal ko njaboot gi bis mu woo leen waaw ne leen waaw yéen ndax ban bàyyi laa nekk ci yéen mu ne ko ah xanaa bàyyi bu baax rek yaa def nangam yaa def nangam mun a xam leen nag baax gu jëkk gi mu leen jëkk a defal mooy dama leen a tànnal yaay ju baax yéen ndaw yi jullit ñi bàyyi leen xel loolu su ngeen dee wuti jabar uti leen seen yaayu doom moytu leen borom greffage ak cheveux naturel yi nga xam ne seen xeesal yeeg seen cheveux kenn xamul lu ñu nuroo koo ci nekkal un mois rek wécc ko gis nga utal ma borom jukko ju rafet borom diine borom kilifa utal ma kooku jabar kooku mooy yaay ju baax loolu mooy xéewal gi gën a rëy gi ngay defal sa njaboot utal leen yaay ju baax kon yow Isa it maa la baaxe baaxe sa yaay boole ko mu nekk siddiqa mi ngi noonu moom la rek la yàlla seede ak siddiqaam siddiqa mu bokk jigéen ñi gën a kawe ci ñu yàlla bind gannaaw loolu yow isa maa la doole li nga ànd ak jibril de ruuxal qudus mi nga xam ne nii moo gën a tedd ca malaaka yi borom bi moo tax ba demoon ci chrétiens yi ñuy wax trinité ñu ne ñett la le mythe mooy le père le fils ak le saint esprit ñu ne ñett la yoo xam ne yépp benn la ma boole la ruuxul qudus muy jibril ba tax nga judd rek commencé di discours gaa yi isa bis bu mu juddoo la commencé di discours inni abdullah ataani al kitab wa kaza wa kaza doomu aadama nit dëkk jinne da koy dugg ndax xam ngeen loolu am na day gëm leen loolu de nit jinne mën na dugg doomu aadama muy wax ay histoire yu kenn xamul yaa ngi dégg bis buñ ko fajee ba mu wér loolu lu ca fàttelu ko dara suñu borom it noonu la boole woon isa ak jibril alayhi salaam isa tey lu judd discours wa bani israil man jaamu yàlla la dana ma def yonent sant na ma may taxawal julli di joxe asaka daf nekk sama waajur ila axir maa la booleeg ruuxul xudus ngay wax nit ñi ci berse ba maa la itamit doo booleeg ruuxul xudus mu jàngal la ba bi nga magee commencé di wootee ci lislaam ci sa jamono waxambaane mi ngi noonu am na ñu bëri dañ ne Isa bi ko yàlla di yëkkati 33 ans la am gis ngeen maa la jàngal ngay mën a bind maa la jàngal sunna jàngal la tawraat ak injil injil dafa ñëwoon rek di def ay rectificatif tuuti jubbanti muhayminan alayhi ci tawraat loolu muy benn jamono isa dañ ne bokk na lu gënoon a siiw yàlla dafa may doomu aadama xam-xamu médecine xam-xamu médecine waaw léegi nag yàlla moom jaarale ay kawtéefam ca la nga xam ne mooy dekkal ak faj awalan mooy suñu borom nee na ko yaa ngi bind ci suuf ci melokaanu picc ci sama tur ci sama sama sama ndigal te it mbokk ko xam leen ni dafay xaraam doomu aadama di nekk di dessiner loo xam ne dafa am ruux loolee nga la waay ñu bàyyi ci xel bu baax rawatina nag yat yat lu am ruux mboolem borom xam-xam dëppoo nañu dafa xaraam su dee daa yem nga dessin ko noonu ci këyit wala dessin ko noonu ci suuf rek. da ngay gis la bëri ci ñoom dañ ne dafa xaram su ko defee borom bi mu ne kon loolu yaa ngi ko def sama ndigal amma képp ko yàtt lu am ruux defar lu am ruux rawatina lii xew tey masalan boo rombee atelier tailleur yi boo jógee jolof moom boo leen rombe foog nga ne salaamaaleykum ñoog nit amuñu benn différence am déet gis ngeen su ko defee loolu mbokk ay njuumte la yonent bi alei salaam nee na yowmal qiyaama dañ lay woo ne la yow dañuy yaa leen defaroon fexeel def ci ak ruux di la mbugal ba baa ngi ci def ruux te xam nga ne doo ci mën a def ruux loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax yaa ngi ko doon def sama ndigal gannaaw ba nga ëf ci rek mu nekk picc gaa yi Isa day ñëw ci ban bi defar picc déqati ko taxawal nii ban kese lañ gis mu ëf mu ne fër naaw doon picc loolu di kawtiif non seulement mu doon loo xam ne nii dafay dund waaye nekk picc buy naaw mi ngi noonu am na riwaay yi am na jàngin yoo xam ne naan tairan mu nekk mu naaw lu mel noonu it maamam ja isa jëkke woon na ko gaa yi isa daaw yor aw yata sànni ko mu nekk jaan ah Moussa la lan laa wax kon Isa waaw dama ne maamam ja Moussa Isa maamam ja Moussa maamam ja Moussa moom yàlla defaloon na ko loolu moom it aw yatam lay jël rek sànni mu nekk jaan mu jàppaat mu nekk yat gis ngeen muy wone ni kii kat ki ko yónni mooy kiy dundal di rey am déet kenn wu ci am sikk sàkk gannaaw ba suñu borom ne ko fàttalikul ba nga xamee ni nii yaa ngi nekk nit ki ñëw amul ay bët nga laal rek mu daal di wér te loo xam ne médecine mënu ci dara ba tey nous sommes au vingt-et-unième siècle mbokk nit ki juddu amul ay bët médecine lu mu ci man mënu ci dara bal glaucome bii rek am na ko koo xam ne dem na ba am tension bët glaucome dañ naan la c'est fini Amérique ak Angleterre ci yam kenn mënatu ko faj c'est fini yaa ngi dégg kon Isa moom bu lay laal ngay wér ki gaana ba daggatoo Isa bu lay laal ngay wér gannaaw ba gaa yi dem nañ ba ne ko Isa su dee da ngaa bëgg ñu gëm la kaay dekkal ku dee woon mu ne leen bismillah ñu ànd ci armeel ya am na riwaay yi wax naan kenn ku ñu xamoon bàmmeelam ci ñu deewoon lu yàgg dañ koy wax naan sax sëtu Nuux la biñ ñëwee ba ci bàmmeel bi Isa ibn Maryam ne ko sëñ caam waa ji ne gu xët ci bàmmeelam jóg taxaw na labbayka ya rasulullah gis ngeen gis ngeen waaye taxul saay-saay bu nootu gëm moom du gëm am déet ñu ne rek gaa yi ne léegi lii mu def nii lépp borom bi it boole ci ne keroog bi waa bani Israël comploté ne dañ lay jàpp rey la man yàlla maa la fekk ba nga mucc ci seen ay waaye preuve yi yépp daje teewul ñoom ñu ne lii day du dara lu dul njabar goo xam ne njabar gu leer rek la loolu it mbokk heure boo gëmee sant ko yàlla preuve du tax doomu aadama gëm ngëm yàlla kay jagleel ku ko neex su la ci yàlla boole santal yàlla te mooy góorgóorlu sàmm ko yal na yàlla boole ñi ca ñëggam ca sàmmal ñu ko
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين بارك الله فيكم suñu borom jël waala mu ni wa iz awxaytu ila alxawaariyin fàttalikul ba may nekk di wax yu ña nga xam ne ñoo la waroon di le dimbali mi ngi noonu ñu tudd ay aide de camp ay lieutenant an aminu bi wa bi rasuli ca mooy na ngeen ma gëm gëm samay yonent sama yonent qaalu amanna ñooñee nga xam ne ñooy labbe yi waroon isa daal dina ah ñun koy gëm nañu washhad bi annana muslimun seedeel ne ñun day nekk nañ jaaj yi jébbalu iz qaala alxawaariyuun ya isa bni maryam fàttalikul ba xawaariyuun yi di wax ay isa doomi maryam hal yastatiu rabbuk ndax mën na sa boroom an yunazila alayna maidatan min alsama ki muy wàcce ci ñun lii nga xam ne mooy taabal ju ànd ak ñam bu jógee kaw asamaan qaala qaala taqullah mu ne ewaay ragal leen yàlla in kuntum mu'minin su dee nekk ngeen koy di aji gëm qaalu nuridu an naakula minha ñu ne ñun day dañoo bëgg lekk ca taabal jooje wa tatma'inna qulubuna mu daal di dal suñu xol wa na'lama annaka an qad sadaqtana ñu xamit ne yow kay dëggal nga ñu dëgg-dëgg wa nakuna alayha min ash-shahidin waaye ñun nekkit ci loolu ñoo xam ne ñun ñooy ñaka seede mi ngi noonu mbokk suñu boroom ñooñee nga xam ne ñëw waroon na Isa di xawaari yoon moom la ñuy boo demee ci chrétien di ko tuddee les douze apôtres muy fukk ak fukki ak ñaar sahaaba yooyu nga xam ne ñoo sësoon ci moom suñu borom ne daa wax yu ci ñoom wax yu boobee am na lu gën a bëri dañ ne mooy yàlla moo ko jaarale ci Isa ibn Maryama mu daal di koy wax jëmeli ci ñoom am na it ñu ne wax yu ilham la mooy yàlla moo leen ko xamal xama goo xam ne nii amuñu tuñuy sikk sàkk ci loolu ci ne dañoo war a topp Isa dëgëral ko bi nga xamee ne loolu am na suñu borom lu mu leen waxoon kon gëm leen ñeel ma gëm sab yonent te it niñ koy waxe mbokk daa iman mooy jullit doo mën a jaamu yàlla lu dul da ngaa topp ab yonentam su ko defee labbe yene ah ñun de gëm nañu e yàlla seedeel na ñun jébbalu nañu te mbokk al iman ak islaam buñ ko teqalee lu ne day yóbbu moroomam iman day yóbbaale lépp lislaam lislaam day yóbbaale lépp iman amma buñ boolee iman ak islaam iman mooy lay nekk ca xol ba gëm ga ñuy gëm yàlla islaam mooy la nga xam ne ci jëf yi lay nekk looloo tax suñu borom yàlla keroog ba muy musal qawm luut ak njabootam daf ne fa axrajna man kaana fiha min almuminin fama wajadna fiha gayra baytin min almuslimin ña fa gëmoon ñëpp génn naa leen muy njaboot ak muy luut ak ña ko gëm amma fekkuñu fa lu dul benn kërug julit lu waral loolu mooy yonent yàlla luut jabaram ja daa feeñaloon ne muslim la te nekk te du woon mu du woon mu'min gëmul woon borom boobu subhanahu wa taala kon ne xawaari yu ne di labbe yooyu dañoo ñëw ci Isa ibn Maryam premièrement ne ko yaa Isa ca mbokk loolu du ay teggin yonent yàlla da nga koy wax yow yonent yàlla waaye doo jaar ci turam directement yaa Isa ey yow Isa ndax sa boroom mën na gis ngeen waxul waxul rek suñu rabbuna de ndax sa boroom comme la seen maam yi waxoon ak Moussa rek yahud mooy yahud ndax sa boroom mën na wàcceel ñu maida min as-sama mbokk isa boobu gis nañu ne yaayam ja maryaama fa mu nekkoon ca biir mihrab ba fala ko mboolemi fruit yu amul woon daal fekk sëñ Caam gën naa dégg ko jaay xaal de yàgg naa xaal amul jamono yi de waaye jamono bu xaal amul bu ñëwee fekk fa xaal jamono bu mango amul bu ñëwee fekk mango yaa ngi ko wër Zakaria ne ko ma yanqu de dëgg naan Zakaria sax yonent yàlla noonu la tudd day Zakaria naam Zakaria ne ko ay yow Mariam anna laki haza ma yow foo jële lii mu ne ko lii ci yàlla la jóge loolu it moo tax ñu ne ko ndax sa borom mën na borom xam-xam yi ñu ca gën a tolérant dañ ne ndax yàlla mën na koo def waaye firiwul ne ndax am na kàttan ci def ko te boo dajoo suñ tabax suñ mën a mën nga maa maye foofu 1000 francs waaye xam nga ne am na 1000 francs waaye ndax mën na laa mayam déet mooy problème bi yaa ngi dégg ndax su borom mën nañoo wàcceel taabal boo xam ne nii day ànd ak wu ñam gis ngeen du ñu mën a lekk mu jógee kaw asamaan ndax yàlla mën na loolu Isa ne leen ragal leen yàlla su dee ne kay nekk ngeen di aji gëm ay su ngeen gëmoon yàlla ni ngeen ko war a gëmi du ngeen nekk di laaj kawtéef moo tax fa lillahi alhamdu moo ko sahabatul kiram musuñu laaj yonent yàlla kawtéef musuñu laaj yonent yàlla kawtéef alhamdulilah yàlla jaarale ne kawtéef yu bëri ci loxoom waaye sahaaba yi musuñu ca laaj benn yéefiri makka yi ñoo ko mas a laaj ne ko xaral ñu weer wi yàlla subhanahu wa taala xar weer bi waaye sahabaam yi musuñu ko laaj mukk ñu ne ko ay isa ñun boo gisee ñu koy laaj laajuñu ko pour dingat fi mu toll nii dañoo xiif dañoo bëgg rek boo ko wàccee ñu mën cee lekk ba suur gis ngeen te it ñu xam ne yow dëggal nga ñu li ñuy wax lépp dëgg la ndax wet bi gis bokku ca te loolu it mënees na leen koo nangul te la ñuy wax ci ne bu ñu gisee dañuy yokk ngëm te it mbokk ngëm day yokk yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku Ibrahima alayhi salaam keroog bi mu naan borom bi kayfa tuhyil mawta suñu borom ne ko ah ibrahima awalam afalam tu'min aw awalam tu'min mu ne ko xaala bala walakin li yatma'inna qalbi ay isa dañoo bëgg suñu xol yi dal te mooy gis nañu taabala nga ne wàcc kaw asamaan ba yegg si ci say tànk fees ñu daanu ci lekk ba suur loolu moom day yokk suñu ngëm te it loolu dana bokk loo xam ne nii dañ koy doon aji lu ñuy seede lay doon mi ngi noonu dama xamul sëñ bi euh, kii euh, nañ koy waxe caamil bu ñu déggee ñam bi rek te xamuñu ni muy demee ni muy demee wala kulli xaal euh, jàpp naa ne histoire ba comme day xaw a gudd ci gannaaw nañu ko yemele fii ba yàlla dajalewaat ñu fi comme xale yi ni ñuy def ci seen épisodes yi al muhim nañu xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala tànnal nañu ñun ñoo nekk ngeen ji xeet yàlla boole ñoo ngeen ji yonent boole ko boole ñu ak la nga xam ne mooy ngeen ji sahaaba loolu moom la doomu aadama bi di war a jàngate ci heure buy jàng lii xam ne julit la ko war mooy mu def rek sami'na wa ata'na moytu diingat moytu len lépp loo xam ne nii day indi njaxas ci xolam yal na yàlla saxal ngëm ci suñu biir xol yal na yàlla saxal jëf ju rafet ci suñuy cër yal nañu yàlla nangul adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw dafa am yoo xam ne moom ab attekat moo koy atte duñ ko mën a def noonu rek la nga xam ne mooy fatawa nii ki nga xam ne nii daal soxna si nekk ak borom këram mu dem ba mënalatu ko la ko ay borom këram di manal bokk na lu borom xam-xam yi di wax da koy xaar pendant un an yu muy faju su ko xaaree pendant un an te wérul am na droit dem ca attekat ba ñaan fa baat attekat ba bu xamee ne la muy wax dëgg la am na droit moom tas sëy bi loole moom la l'islam prévoir su doon te ne nag ne moom ab attekat amu fi lenn doo nga fësës delloo ko alalam te libre waaye daal nañu xam ne islam may na ko loolu su ko muñoon te yàlla taxit loolee moom mbiri boppam la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ndax loolu it feebar la ci feebar yi lu dul ne koo xam ne ak màgget moo la ci yóbbu waaye doomu aadama dana feebar ba loolu te tëkku waaye bu fajo fajo faju yàlla subhanahu wa taala saafara ko wallahu subhanahu wa taala alam naam ndax boxu borom xam-xam yi boole wuñ ko ci payu dagan payu dagan box bokku ci doomu aadama ay ponkal jàkkaarloo di dóor dóor yi ëpp mi ngi jëm ci kanam gi dangay gis koo xam ne balaa kii bee kii mu mu daanu dangay gis koo xam ne day nekk kawu dëbbu islam nanguwut loolu mbokk même bëri yu ñuy bëri ci suñu stade yi bu deen bëri simple islam xam na loolu mais bëri dóor jullit du jàkkaarloo ak moroomu moroom jullitam di ko dóor bañ damm dóor ba yàqu dóor kaw dëbb dóor loolu mbokk fa boobu islam xamu ko loolu daal ñu bàyyi ci xel bu baax ah jàng bi daal xanaa nga jàng ko pour ëllëg bu la ab caamen daje nga xam nooy défendre sa bopp waaye jàng ko pour compétition moom loolu moom jullit du ko def arts martiaux yi ku ne mën na ko jàng mën nga jàng karaté judo loolu ñu dañuy xeeb même loo ndaw yi sax ñu jàng ko ndax ñoom bokk na dañ lay jàngal surtout dal jàngal la maîtriser sa bopp jàngal la bañ a tooñ loolu moom ndaw jurit jàng ko amaa liñ ci liñ ci wax kay mooy compétition yoo xam ne nii da ngay dóor di mën a lor sa mbokk jurit moom mu mën laa lor loolu moom li l'islam dul d'accord naam naam dafa am benn yàqkat boo xam ne bi daal am na benn waay boo xam ne dafa tontu ko nee nañu itam su ma sañoon borom xam-xam yëpp tontu ko tontu wuñu ko pour moom waaye pour deeral xelam julit dafa am ñaari wax yu mu wax yi bari waxee bari na waaye bi ci gën a doy waar dañuy comprimé yàqul koor nga dem ba sa bopp di metti nga nga jël comprimé naan yàqul koor beneen bi mu ni bépp jigéen boo xam ne toog nga fukki fan ak juróom sa jëkkër joxul la dépense jarul jàpp yi da jarul remboursé wutul benn jëkkër xam naa ne gëmmu ko gëm waaye nag waaw non moom li nga wax kay li nga wax kay moo ci nekk rek li nga wax moo ci nekk quoi li nga wax rek moo ci nekk mooy waaw ala kulli xaal mbokk nañu xam ne du ñàkk ba ila yawmi diin la yonent bi la ko Xusayfa laajoon fitna yi nar a ñëw bokkoon na ca ci axiru zaman mooy duaat ala abwaabil naar ay ñoo xam ne nii ci buntu sawar la nekk di woote ku leen wuyu ñu dugal la ca loolu du loolu du mën a deñ waaye ala kulli xaal ki taxaw naan jël comprimé naan yàqul koor kooku bokk mooy kiy foye diineem loolu foye sa diine ak bëgg siiw loolu rek moo tax am na ñoo xam ne nii seen yàlla mooy hawa afara'ayta man ittaxasa ilaahahu hawaahu ñoo xam ne seen yàlla dëgg mooy seen bànneexu bakkan seen bànneexu bakkan mooy dañoo bëgg siiw nit ñi di wax ci ñoom fu ñu toll looloo tax ba suñu benn mbokk saaxo yéen ñu bëri ci yéen xam ngeen ko nee na ñoom bi ñu leen di former en tant que journaliste dañ leen wax bu ngeen bëggee information ñu koy jot naan am na xaj bu matt benn nit fee nee na loolu du information mais da nga naan benn nit moo dajeeg benn xaj fee matt ko da nga defee loolu mooy information donc toujours ngay wax loo xam ne nii nit ñi mësuñu koo dégg ca la tax ni nit ñépp naan waa di ngeen li di waxa waa di ngeen li di waxa dégg ngeen loolu waaye ala kulli xaal loolu musiba la gannaaw ba it jigéen nga toog ñu ne sa jëkkër joxu la dépense rek 15 jours sëy ba tas naajul loolu moom képp ku ci tas sa sëy yaa ngi boo demee da ngay njaaloo loolu moom nga bàyyi ci xel bu baax wallahu subhanahu wa taala aalam naam jigéen am na droit comme ni ñu leen wax sànq jëkkër ji nangu koo jox dépense bu muñee mënatu la muñ mu dem ca attekat ya ñu atte xool lan mooy xaalu jëkkër bi daa bañam daa ñàkkam daa nangam loolu ay atte la ba baa ñu yegg ci dañuy maintenir sëy bi wala dañ koy tas waaye après 15 jours sëy bi tas na loolu islam moo moo ko jëkk a wax te it yàlla na ko mujj a wax ñu ngi noonu waaw bismillah waaw waaw waaw waaw ndax man ki nekk ci biir naafila ñuy jàng la gën mooy nga yem ca njàng mi loolu mooy la gën parce que place boobu place su qiraa la amma nag gannaaw loolu am nga temps bu lu yaatu boo man di di di nekk di def la nga xam ne mooy lire traduction boobee mais ci biir julli gi daal la gën maadaama yaa ngi ànd ak imam di jàng la lay taxatee kaamil yow mooy jàngaale imam di jàng ngay lire pour mën a xam bu baax a baax imam li muy jàng lu mu doon parce que imam jàngul traduction alquran bi lay jàng kon nga topp alquran ba ëllëg ci si biir nga mën koo jàng ni ko imam jàngee gannaaw ba nag boo delloo sa kër nag la nga doon jàng nga xool traduction bi lan la la waral te it loolu ndawal jullit ñi ngeen bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla yërëm ki may ñaanal fii toujours alaaji Fajur Gueye bokk ni li mu naan wax intellectuel yi ndax yow mas ngaa lire Coran traduit bokk lire leen Coran traduit Coran boobu rawatina suñu mbokk sawu jeey def na ci effort yu bëri depuis ñu ko doon commencé traduire ñoom Hamidullah ak ñeneen ak yeneen liggéey bu rëy rëy rëy lañ def ba def ko Coran traduit su ko defee yow au moins yow jullit fexeel di lire traduction bi nga lire ko lépp xam ne nag na ko suñu mag ba doon waxe Cheikh Souleymane Gueye loolu takk ndeeru alquran la waaye boo xoolee ay tafsir yoo xam ne mën na nekk ay 30 volumes ab tubaab bu ñëwee ne da la da lay traduire alquran mu tolloo kaamil bi loolu du traduction bu ñu mën mais dana la may au moins benn aperçu nga xam ne aaya bi lii la ba ëllëg nga mën a poser question ngir gën koo leerlu waaye daal bu ñu mënta am lépp la la jàpp ni moom bu ñu ko ñàkk yéen ndaw ñi fexe leen ba au moins ngeen am Coran traduit ni ngeen di lire alquran ngeen di xool traduction bi ba am aperçu ci aaya yi la ca des ngeen def ko ay question mi ngi noonu mbokk waaw xanaa ñu mujjee ca mbokk ba li waaw waaleykum salaam ala kulli xaal dindi bañ yàqul koor anesthésie yàqul koor xanaa la ñuy wax kay mooy fa ngay toog ñuy anesthésie ak dindi bañ ak ndox ma ndax loolu du am lu lu lu jàll sa put tant que loolu amul lu jàll sa put yàqul sa koor donte ne ne itamit da ngaa dem di dindi sa bañ nga bañ a woor it islam di la ko toppee waaye daal tant que moom am nga maîtrise ba wóor na la ne liñ produit yi ñuy def ak yooyu yëpp dara moom jàllu ci put gi koor gi moom baax na wallahu subhanahu wa taala alam wa sala waaw dañu waxoon ñu mujj ci mbokk bi de waaw kon ñu mujj ci ki fettaxu rek kan la waaw ah waaw bismillah waaw ah su dee su dee dafa jóge ci tukki waaw su dee dafa jóge ci voyage day dagan na ñu may ko mu continuer lekk loolu mi ngi noonu ndax kii nekk ci tukki moom islam may na ko loolu dagal nañu toggal ko añ dagal nañu defal ko lépp a sëñ càmb fexe nga bañ a bokk ak moom rek waaye dagal na nga jox ko añ ak ba suur reer reer mi ngi noonu yal na yàlla may ñu afiye fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain